براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xamante ni yéen dëkkee ci département bu Tiwaawan su ngeen déggee suñu kàddu xam ne bisub alquran moo wootee diina daal di sàjji ci dëkk bi nga xamante ni miin na alquran tàmm na alquran mu di Tiwaawan ki nga xamante ni nag moo woote bisub alquran boobu fan lay daal di amee ci quartier Fogni waaye nag ci daara juñ koy amalee mu di daara Seydi Mouhamadou Mansour si borom daara ji borom xam bi ñu bari ci Tiwaawan nag daal di koy xam ci daaray Maodo Sow ci ndigalul Serigne Babacar Sy Mansour porte parole lu Tidiane di Serigne Pape Malick Sy si ak ki nga xamante ni moo di Serigne Cheikh Tidiane si bu Serigne Mansour si borom daara ji ba tax na ma dend cee kenn ci ñi nga xamante ni ci ñi taxawal bés boobu noonu ci la ñu daal di bokk waaye bokk ci ñi nga xamante ni dañ koo daal di organiser Serigne bi ñoo ngi lay nuyu di la dalal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Afrique di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu comme na nga ko waxee rek diina moo xewle fu mu fan la xewee mooy mu nga xewee si dëkk maam Seydi Hadji Malick di Tiwaawan si fan la daara Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ja nga xam ne da ko dénk Seydi Hadji Malick Maodo Sow mi programme bu am solo nag mii bisu alxuraan xam ne Sénégal yëpp ñoom moom alxuraan wala addina ñoom moom alxuraan bis ba kañ lay am la onze saawe incha allah rabbi ñi si woo nag képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu an muhammad rasulullah ñu ngi la si woo bàyyuñ kenn rawatina nag képp koo xam ne yaa ngi safoo daara wala yaa ngi safoo alquran moo xam foo mën a ne si réew mi ñu ngi lay woo si bis boobu mi programme bu am solo si bis ba nag kañ lay commencé ma lay commencé ndax ma si ngoon danañ fi def xadaratul juma waaye danañ fi def nag lenn si jaar jaaru Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si borom xam yoo xam ne ñu ràññeeku ñoo koy taxawee bu bis ba jàllee nag mooy ajjuma ji jàll na suba ga si neuf heures mbir mi commencé nag incha allah rabbi programme ba nag si lay commencé ñu dalal gan ñi jàng alxuraan ji gu xel yoo xam ne ñu mokkal alxuraan la wane fi alxuraan ju leer nañ bu ko defee nag si teewaayu suñuy sëriñ seriñ pam Malick si bu sëriñ Mouhamadou Mansour si borom daara ji dana ñëw waaye conférencier bi muy ku ñëpp xam Sénégal yëpp xam ko muy sëriñ Ahmed Sarr bu xam ne sët la si Seydi Hadji Malick xam-xam ba leer nañ bu ko defee moo fas yéene ñëw na ànd ak ñun si bis bi bon ñu ngi si woo waa Sénégal yëpp di bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu muhammad rasulullah ñu ngi la si woo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah mbokk yi bis baa ngoog di bés boo ni nee leen heure bu jàllee rek ñëpp dañuy yàkkamti daal di koy fekke si waa ndaxte kat li nga xamante ni moom lañ fiy wane di wàllum alquran wàllum diine te lépp rek daal di teg ci li nga xamante ni nag moo di ci yoon ba tax na nag Serigne Maodo Sow ne na bàyyiwul kenn képp koo xamante ni rek dégg nga suñu kaddu nga xamante ni moo di sa carte invitation Libération bés bi nag ki nga xamante ni moo koy daal di waxtaanee ci maanaam ki koy conférencier di Serigne Ahmed Sarr kenn dootu ko lam-laamee ci tariixa li nga xamante ni moo di tariixa Cheikh ba tax na nag yéen ñi nga xamante ni yéen ñoo ñuy bàyyi xel ci Dabakh TV ñu leen di woo samedi la 11 janvier fii ci quartier Fogni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi alxuraan a woote diine moo woote ñu bëgg doomu jullit yépp nag daal di si ndax ñu jëlee fi xam-xam. ذلك بانهم قوم لا يعلمون